jëlee moom ñu ji moom moom Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. rek. rek. rek la bi rek am am dafa def ci dafa def ci moom na. na ñu ko def ci ñu ko def ci loolu moo waral la. dañ ko doon liggéey loo rek. dañ ko doon liggéey loo rek. bi liggéey bi noppee. bi liggéey bi noppee. moom sax. moom sax. yëg na ko yëgu ko. yëg na ko yëgu ko. dafa mel ne fi mu toll woon. dafa mel ne fi mu toll woon. li wees gisatu ci woon dara. li wees gisatu ci woon dara. ndax fa fa bu fa fa bu métti bu rëy. ndax fa bu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. foofu la demee. foofu la demee. xam ne yàlla moom day ful jëf la. yàlla moom day ful jëf. jëf la te jëf la. waaye day fay yéene. waaye day fay yéene. kon yéeneen jooju. kon yéeneen jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. fulal ko jëf. fulal ko jëf bi. fay ko yéene. fay ko yéene. kon sa ñaata ngoog. kon sa ñaata ngoog. yéen ñi ma àndaloon nag yéen a des. ñun ñi mu àndaloon nag moo ci des. yéen a bokk tawfeex bi. ñun ñoo bokk tawfeex bi. du ma dolli du ma leen du dolli ci yéen dara waaw loolu. leen du dolli ci ñun dara. xanaa xanaa xanaa xanaa yaar. xanaa lu ñaar yaar. nasu gi am na ba noppi. nee nasu gi am na ba noppi. waaye dama ci bëgg nag muy gën a nasu waaye lu mu ci bëgg nag mooy muy gën di nasu rek. da ca des da ca des nag. nee na la ca des nag. mooy am kilifa. mooy am kilifa. bu mat kilifa. bu mat kilifa. suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. nee na suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. waaye sëñ Youssou Diop mii. nee na sëñ Youssou Diop mii. bu ma gisee sañu at. bu gisee sañu at. damay gis sañ yuusu ci biir. day gis sañ yuusu ci biir. bu ma gisee sañ yuusu. bu gisee sañ yuusu. damay gis sañu at ci biir. day gis sañu at ci biir. yuusoo ngoog. kon yuusoo ngoog. jërëjëf nag moom kenn ku ne. ci yéen. yéen la ca def nag kenn ku ne ci ñun. am nga loo xam sa bopp. am na loo xam ci sa bopp. am nga lu la lu la lu la indi woon ci am na lu la indi woon ci su tawee. loolu nag. moom na nekk ci kanam. na nekk ci kanam. kenn ku ne ci yéen. kenn ku ne ci ñun. loolee. loolee. du teg ko ci kanam rek. na ko teg ci kanam rek. bu mu nangu dara jaar ci diggante. bu mu nangu dara jaar ci diggante. te bu mu bu mu bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo geesu. bu mu nangoo geesu. na wéy rek. na wéy rek. dëggoo rek. bu dëggoo rek. dañ koy wommat. dañ koy wommat. loolu ñàkkul ngeen ci xam. ñàkkul lu ngeen ci mos du ngeen ci ñàkkul lu ngeen ci mos ñàkkul lu ngeen ci xam. nee na ñàkkul luñ ci mos ñàkkul luñ ci xam. yoon waa waaye yoon waa ngooñ. waaye yoon waa ngooñ. waaw jëmmi mbooloo mi moom. waaw jëmmi mbooloo mi moom. na na na gën a nasu. na gën a nasu. nañ gën a nañ gën a am kilifa te gën a nangu seen kilifa. nañ gën a am kilifa gën a nangu suñu kilifa. bu ngeen ko defee rek. nee na bu ñu ko defee rek. day day gën di yomb rek. day gën di yomb rek. waaw ndax ndax womatu rek la. womatu rek la. ne ma ko daanaka wax ginnaaw ginnaaw dañuy womal nag. te nas bi mi ngi ci suñu nopp suñu bakkan. na nas gaa ngi suñu bakkan. na loos bi yorom rek. na loos rek. yolomee rek. na loos bi yorom waaw bu yolomee rek. da nga def li ñu bëgg. da nga def li bëgg. te doo sonn. te doo sonn. kon kat noonu dëgg la de maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax mbokk yu baax. ñu ngi sant bu baax mbokk yu baax. bu baax a baax. sant bu baax a baax a baax. xool rek seen ñoom seen tubaab. xool ci ñoom rek seen tubaab. na ma ko daan waxee rek wax naa ko bu yàgg de. na ma ko daan waxee rek nee na wax na ko bu yàgg. moom ay sang laa leen def. moom ay sang la leen def ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang laa leen def. ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang la leen def. moo xam dañu dama dama moo xam moo xam moo xam dama leen a jur. moo xam dafa leen a jur. moo xam wala dañu ma leen a jural. moo xam dañu dañ ko dañ ko leen a jural. ñun ñëpp lay boole. ñun ñëpp la boole di xool sëñ Tuubaa ci. di xool sëñ Tuubaa ci moom ci ñoom. kon eh, maa ngi sant bu baax. Binyan, bah, yang bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,